mais dañ koo yërëm ñu indiwaat ko comme si que Serigne Moustapha Sy moom mooy rey ni ñi te yàlla nee na ci alxuraan man rek maa mën a rey man maa a dekkil tey wax nga ko ci si sa biir wax nee nga yonent bi dafa am ñu nekk màkk tëj seeni i buntu ci eh, seeni i kantin daal ni bu fi kii jógewul du la ubbi wala bu fi kii jógewul du liggéey te yonent bi la ñuy wax mel na ñoom ñoo yor bakkanu yonent bi wax nga ko sa biir wax yow yoroo bakkanu sëñ Baye Sy Mansour yoroo bakkanu sëñ Baye Sy Mansour mënoo koo yóbbu sëñ Mbaye Sy Mansour yàlla na fi yàgg te wër Serigne Babacar Sy Mansour yàlla na fi yàgg te wër bindal leen ma ci commentaire yi Serigne Babacar Sy Mansour yàlla na fi yàgg te wër gàmmu du pour politique gàmmu pour wax yonent bi la waxtaane yàlla jàng alxuraan waaw mais nekk ci gàmmu gi naan diw naroon naa dee dañ koo may sens indiwaat ko mel na yow yaay yàlla yow yaay rayaate déedéet man d'accorduma loolu doo rayaate beneen bi ci def def na erreur de communication dugal waa Ousmane Sonko yi sax gàmmu erreur waa kër Ousmane Sonko yi nee na Ousmane Sonko buñ ko dee seeti ci hôpital bi day crise crise lu cardiaque di feebar feebar feebaru sëñ Moustapha mooy wax ne du samay wax loolu lépp da koy def kon yéen gi ngi doog xam ne kon manipulation waa Pastef yéen a koy doog xam nee na da koy def mais dara du ko jot yaa ngi dégg nekk soxlaam faju na déglu leen bu baax kàddu yi bu baax a baax ngeen déglu ko parce que du samay wax ay nit te bokk ci Yewwi yaaskan Wi waaw ni dañuy seeti Sonko ca hôpital ba boo ko defee bu ñu ñëwee mu daanu daanu lu crise waaw mel ni mënu la wax parce que la ko intéressé wax na ko man ba noppi boo ko defee médecin yi leen ah dafa nekk dans le comment foog ngeen may ko ñu daal di jógaat dem fekk moo ci bëgg loolu waaw waaw. dégg ngeen wax ji bu baax dégg ngeen bu baax ji Serigne Babacar Sy a na fi yàgg ci wër wasalaam. <laughs> salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum bun Abdoulaye Dione xaw ma bunu kanaara xaw ma bunu fas ah sa ngaam yu wow yi di mel ne ay karbetu muus yow boo taxawee naan da ngay laaj réew mi waa waa gosaas dañ laa war a jàpp duma la ay duma yu métti tàndar barkaan la sol la ci bëri godiwu yow gosaas amul post de santé en tant que ancien premier ministre gosaas amul de poste euh, euh, euh, poste de santé gosaas amul génologue gosaas am gosaas amul dara gosaas am na ñoo xam ne sax ay sondel la ñuy taal defoo gosaas dara taxaw naan da ngay laaj Amadou ma xool ko parcelle ni mu ko parcelle parcelle bi ngi mel ne Europe parcelle ngi mel ne Europe yow yow 7000 voix ancien président ancien premier ministre 7000 voix mënoo mënoo mënoo faa am dara dara dara man Adama Boss day déggee boo boolee sama plateforme yépp day lekk ndayu day day lekk ndayu Gosaas ndax Gosaas 7000 voix kese la te yow mënoo koo gañe nga nekk fii di rey ak nit ñi di duul naan président day waxtaan ak man dinaa ko gis kañ nga gëj a wax ak président bàyyil sa duul yi bun Abdoulaye damay bun bun duul balay bun yaa mën a fen